pour déposer benn recours recours bi li ko indi mooy dañuy ñaan cour suprême mu daal di neenal décret bi nga xam ne Macky jël na ko décret bi indi coow mi ci réew mi parce que décret boobu moom moo neenal décret bi Macky Sall convoqué woon corps électoral te ñëpp xam nañ ne convocation corps électoral bi mooy ubbi campagne électorale bi candidat mën liggéey processus électoral bi dox yoon bi Macky Sall jëlee décret neenal décret convocation corps électoral bi looloo bloqué yëpp ba indi coow bi nekk ci réew mi si loolu la assemblée sukkandiku ba jël loi boo xam ne teguñu ko fenn ba nga xam ne dañu ne dañuy yóbbu élection yi décembre 2024 yokk mandat Macky Sall ba décembre 2024 loolu la ñu attaqué tey déposé recours recours bi nag du bii benn recours ñaari recours lay doon parce que bii dañu attaqué pour que ñu annuler décret boobu waaye comme yenn saa yi cour suprême liggéeyam dafay xaw a yéex dafa am beneen recours buñ si ñambaas boo xam ne moom moom dañoo ñaan cour suprême mu aj effet wu décret d'abrogation bi tele sorte que bu ko ajee décret bi mu convoqué koor électoral dafay dundaat bu ñu mën a reprendre le processus électoral loolu la ñu ñaan cour suprême. d'accord maître xeex bi tey moom euh, solo am na solo ngeen xam ne tamit fii tey. dañu am collectif avocat boo xam ne man maa koy coordonné te ñi si nekk ñooy El Hadji Mama Ñing maître Daouda Ka maître Abou Assane Diallo maître Abdinar Ndiaye ñun ñu représenté mooy ñii Cerno candidat yi Cerno Alassane Sall Cheikh Tidiane Dieye Boubacar Camara Serigne Mbuub El Hadji Malick Gakou Déthié Fall Ali Nguy Ndiaye Mame Boye Diaw Anta Babacar Ngom Aliou Mamadou Dia Bassirou Diomaye Faye professeur Daouda Ndiaye Habib Sy ak Pape Djibril Fall donc say boobu am na solo trop pour wane ne combat bi benn la donc am nañ yaakaar lool que cour suprême damay faral di wax justice dafa am ñetti fonction dafa war a dalal euh, sur le plan social sur le plan économique sur le plan politique en général dossier bu amee benn si si si si si rek mooy am fii ñetti aspect moo si daje parce que ñëpp xam nañ ne tey li nekk en c'est pas seulement c'est l'équilibre social de notre pays, c'est la dimension politique fondamentale parce qu'on est dans un tournant et aussi les conséquences économiques. Maître, lu tax tànneefu Cour suprême bi ndax gis nañ ni ci conseil constitutionnel. ñaari recours yi bokkul parce que kan non xaw ma sax ñu tax candidat lañ parce que fële recours bi ñu déposé mooy recours bi groupe bu député un dixième des députés ñoom dañ koy déposé pour l'inconstitutionnalité loi boobu ñu voté assemblée nationale ñaari yoon yi bokkul voilà tey moom euh, solo na solo ngeen xam ne tamit fii tey dañu am collectif avocat boo xam ne man maa koy coordonné te ñi si nekk ñooy El Hadji Mama Ñing Maître Daouda Ka Maître Abou Alassane Diallo Maître Abdinar Ndiaye ñun ñi ñu représenté mooy ñii Cerno candidat yi Cerno Alassane Sall Cheikh Tidiane Dieye bubakar Camara Serigne Mbuub El Hadji Malick Gakou Déthié Fall Aly Ngouille Ndiaye Mame Boye Diaw Anta Babacar Ngom Aliou Mamadou Dia. basi bi nga xam ne Macky jël na ko te ñu considéré leen décret boobu Macky tegu amul benn fu mu war a sukkandiku pour jël ko. parce que le 3 avril amutoon benn loi wala benn dispositif légal bu koy permettre de rapporter décret bi nga xam ne moo convoqué woon le corps électoral pour l'élection présidentielle du 25 février. donc le front des candidats pour l'élection du 25 février ñoom ñoo daje. 14 lañu wala 17 lañu pour le moment ñoom moo am compétence pour annuler apprécier la validité et la légalité d'un décret pris par le président de la République. le ministre moom aussi confirmé na dans un communiqué signé na ko gis nañ décret bi tey d'ailleurs mënoo jébbal cour suprême requête aux fins d'annulation te amoo copie décret boobu effectivement décret boobu am nañ copie bi ba boole nañ ko recours bi moo tax ñu sakku ci cour suprême na ko annulé. Aly Ngouille actuellement fi mu toll il est dans un cadre dans une plateforme qu'on a bi ñuy tuddee. le front des candidats pour l'élection présidentielle du 25 février tey combat juridique bi la ñu engagé man je je suis son mandataire et en même temps son avocat moo tax ma rallier le pool des avocats pour mener le combat juridique